TV Fall boo bëggee xam li nga xamante ni moo xew dara du la nañu jaaxal euh, man de euh, saa su ma xëyee. Euh, bëgg jël sumay bagages yëpp daal di euh, euh, quitté réew mi préparé valise yi wante corona téye ma fi rek so ndax corona ngi ci fépp mu ngi ci réew yëpp gis ngeen ni corona saa weer bu ne mu génn ci yeneen i fànn actuellement Europe mu ngi fay def ay ravage yu doy waar ba Afrique ñu ngi ragal ndax lu jugee Afrique du Sud dem ba Europe jamono yi àdduna bi yëpp tiit nañ ci waane boo xëyee di xalaat quitté réew mi ndax boo xëyee ñu lay wax ay wax yi euh, waaxu noonu mhm. ay sant sant bii bu ma euh, sañoon taal ko hmm? nga xëyati ñu ñu lay won benn benn nit koo xam ne dafa daf dafa def dafa traître maanaam mhm. dafa dafa def lu li ñuy tubaab tuddee traître te mu fës te mu wér ah euh, kii kii jiite réew mi di ko dalal ak di teg enveloppe ci ci taabal bi enveloppe lu mu doon ñu naan lii laa lële la laam-laame bi rek déjà c'est quelque chose waxtuma la ak dalal bi ci suñu palais Euh, moo tax ma ne la saa bu ma xëyee Mbàkke mhm. euh, am envie quitter réew mi rek nag. wallaay wallaay benn yoon. du yow dong sax. Euh, ndax ku dis gor rek. boo quitté wut itam fi nga toog da ngay yëg ay mettit ci sa xol. ndax dafa am yu ñu amoon yoo xam ne dañ koo tàmbalee ñàkk. muy ngor muy jom muy am looy jomb am looy rus yooyu dafa gën a foor sax am looy ragal ndax yarkat yi dañuy wax ne li ngay ragal boo jàkkaarloog moom mën ngaa tiit waaye li nga jomb moom dafiy bañ a nekk ba noppi nga jomba def yenn yi. loolu ci suñuy ci suñuy yëf la bokkoon nga xamante ne bari na ñoo xamante ne seen i maam dee nañ la leen rey mooy sàmm seen kàddu ak sàmm seen ngor ak sàmm seen dignité ak seen woy ëllëg moo tax image bi nga wax nii bu fekkente ne noonu la demee maanaam ki nga xamante ne moo nekkaloon waa yeewe askan wi ci ab gox dem ba war a déposer liste ya daw ak moom ñu ne gis nañ ko ci kër kenn ci farandooy yi chef de l'état bërki démb ñu gisaat ko photo bu mu ànd ak chef de l'état ay enveloppe tege ci suuf mm. bu fekkente ne yi ma wax nii yëpp noonu la amee mm. lu lu gën a ñaaw loolu cim réew amul maanaam nit ku def loolu ba noppi dellu siwaat waat di xool nit ñi ci ay bët yaakaar naa li nga li nga jënde alal dañ naan sax daa jaay ngoram waaye kooku moom daa amul woon ngor kooku moom daa amul mérite sax ay nit ñu nite di wax di analyser di jëme ci moom hmm. parce que kooku mën naa jaay aw xeet kooku mën naa jaay aw askan te li mu def ak goree di pire la. muy moom aji def ji. waaw nga baal ma Mbacke mais euh, c'est-à-dire lu ñu koy débat sax du moom jëmmam joojoo tax ñu koy débat. effectivement mu dem dajeeg suñu président. sax tax ñu koy débat parce que bu doon moom rek def naa. fi fi toog léegi nag léegi nag muy moom ci boppam ay jëfam mooy li ma doon wax nii léegi beneen bi ci def nag mooy ki nga xamante ne moom la ñu tànn ñun waa Sénégal jiital ko ci bopp réew mi mm. nga xam ne suñuy jikko yu baax daa war di feeñ ci moom mm. ñu doxalin war a feeñ ci moom mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy lancé loolu ndax gën ñu cee sawarloo mm. bu lu mel nii amee dafa nekk njàngale moo dafa nekk loo xamante ne ñaawteef gi day wuteek man mu toogoon ak moom ak keneen ku toogoon ak moom dafay ubbi buntu buntu beneen buntu bu baaxut e, donc ci rey ngor e, loolu ak pal jëru ko ndax parce que président Macky Sall falu na faluwaat na te àggut fii ci lu fés te kooku amul lum leen mën a indil bu dee am maire la wala ay àndandoom ñoo ko ci dugal wala nangam yooyu euh, euh, maanaam politique bu xayadee noonu euh, dëgg-dëgg mënoon nañ cee bañ a àgg loolu mooy benn bi beneen bi nga wax léegi ci wàllu waaso yeeg ci wàllu xeet yooyu te ki ko wax di Gaston Mbengue moom Gaston wax di yàlla kàddoom yooyu sax am nañu am na am nañu naan bettu leen ci Gaston parce que Gaston la hmm. moom wax dëgg yàlla wax lu wax lu fees dell ay nopp moom Gaston tàmm na loolu loo xamante ne ku ko dégg rek sow dem waaye nag jàpp moo woon ne dana wax wax ju toll fii ndax ndax ndax ki mu doon ci réew mi ak euh, li mu fi war a représenté ak am fi njaboot ba noppi itam doon koo xamante ne am na ñu baree bari ñu muy liggéeyal moo xam ne papa lañ koy wooye mu dëkk ci réew mi am fi ay mbokk euh, bu fekkee nag moom euh, damaa xamut ci ban titre la Gaston doon yi parce que Gaston doo xam ba xam moom promoteur ba xam promoteur u làmb la buy wax ci làmb ji wala koo xamante ne kuy wala wala wala wala koo xam ne kuy liggéeyal état la di réeral askan wi parce que lii xeetu déviation la ci askan wi après nag Mbacke moom bëri na ci morom voilà waaw parce que tey ñoo xam ne bu ñuy wax doo xam sax parce que tey jii bi ñu xëyee ñi ngi waroon a wax ci poste premier ministre bi nga wax ñi ngi waroon a wax ci élection locale yi ñi ngi wax ci leneen ñu xëy suba di wax ci ñu sant jaas matuñ fi mille buñ leen buñ leen lakkoon kenn du ko yëg man ñiy wax ne charte non violence la ñuy signé lii mooy non violence pire bu jant bi soo tey te dégguma leen ki jërëtut ñuy wax ay affaire non violence violence jërutul ñuy seeti Sonko wala Khalifa Sall mm-hmm. ñoom Serigne Socé wax non violence mm-hmm. bu jant bi sooyee te demuñu mm-hmm. ko ba ca média ya mu tuub baat yi mu ñuy waxati ay non violence wax ju gën a ñaaw loolu mënta am ci biir wax dëgg yàlla oustaz Maodo Faye c'est choquant ah mais euh, da nga daan sax euh, dafa mel ni dara choqué tu leen waaw xam lañuy damay tàmbalee ci bi nga njëkk wax léegi mooy mbokk moom nga xam ne moo fëkkoon mbirum enveloppe ba waaw ba noppi fëkkoon euh, kayitu waa Benno waa Yewwi Askan Wi ba noppi ñu ñu ñu dalal ko man xam nga ñan la incriminer moy service communication bu nek présidence wala kan moy gérer image yu Macky Sall. Ah, non non mais attends attends attends xam nga tax luñu wax ngeen luñu wax ngeen ne kii ko wër ñi ko wër attends attends ah, mom nak non Macky Sall non defal ndànk ah, non non non defal ndànk rek xam nga liñu wax ni ko wër ñi ko wër ñi ko wër non non non parce que da nga xamul sax fuma jëm c'est-à-dire que man suma nekkon ci wetu Macky Sall du dalal ngor sos hmm. fofu lay waxe maanaam man su ma yore woon dara ci loo xam ne dafa jëm ci image Macky Sall wala communication wala man ma yore loo xam ne dafa jëm ci ay mbiram ay sorteem ak ñu war a ñu war a dalal damay wax sama directeur du cabinet mu dalal ko waaye man du ma ko dal. daa jël directeur waaw waaw loolu bu ko sàkkoo nangu ko bëgg ko nag. mais foofu laa jëm. Ah, voilà léegi nag léegi nag léegi nag bu fekkente ne njiit réew mi ci boppam moom moo moo accepté loolu nag effectivement sax moo ko accepté ndax bu ko accepté loolu du am. <laughs> kon loolu li ñu ciy mën a jànge mooy kon Macky Sall Macky bu fekkee xeetu nit yi képp képp cundum ñoo nekk ci wetam. bay hmm. ba mu abal ma parce que du ñu jëmale kanam ndax day wone kon image yu Sénégal ci beneen fànn. Hmm. te loolu baaxul mooy ngor gi nga doon wax ak ñàkk jom ak yu demee noonu la. beneen bi ci tegu mooy euh, xam nga Gaston euh, suñu frère la suñu mbokk la et mais nag nekkul porte parole Macky Sall wax dëgg yàlla du porte parole am. du porte parole am te gisuñu ko tamit mu yore carte APR boo xam ne bi dafa ne xëy na même bu fekkee soobu ji na parti socialiste lañ ko léegi nag euh, moom euh, doo xam ba xam dafa bëgg a defar wala dafa bëgg yàq ndax léeg mu jekk moom. de ah, dafa dafa nang non non ko dégg xam ne wax yi wax yi foofu laa jëm xam nga daf démb rek ci wax ji wax na ci wax ji doy waar naan waaw sama lamb ji jàmm rek fa am déedéet lamb ji amoon na xeex lu tax waxu ko mm-hmm. bon te loolu violence la beneen bi ci tegu gis nga nag nit dànka mi ngi wax naan nii bu ñu ko defee nii nangam ak nangam moom Macky ci boppam dafa waroon a woo dikk ñu convaincre ko moom moom moom. jërul Macky Sall waaye wala procureur ci waaw waaw waaw man mi lu ne wax nañ ma ko Maodo Faye nee na jàppale na nii nangam bu ke léegi nag violence bi nag mi ngi tàmbalee ci kooku doon wax naan diw jaas da sant ak njaay ak jóob ak le fait que muy wàññi askatoon Sénégal naan ñii buñ leen taalee dégg nga la boo brûler la wax brûler en hmm. français buñ hmm. leen taalee motuñu cent personnes loolu mooy violence verbale ba pare waxaat ko ne maa tey ba noppi daal ne nag man li may wax maa ko tey je ah. confirme sama ay seize dix sept millions Sénégalais yëpp parce que dara du ko ci fekk. waaw kooku nag foofu nag loolu nag mooy zéro. léegi nag loo xam ne yow da ngay dara du ko ci fekk. du moom moom moo njëkk a def loolu. Ah. député boobee sant Sow. Ah. wax ay ci ay affaire yu ah. jaas yi. Euh, wax na wax ju xaw a nuróog loolu donte nag dayo bi bo maanaam bokkut. niveau yi moom moom ci wàllu politique la wax. wax ne lébu yi nañ ko eh. moom moom dafa doon loo xam ne dafa ëpp man loolu mooy benn bi nga baal ma Maodo beneen bi ci des mooy man média bi wax ji fekkee émission bu ñu enregistré la loolu kenn waru ko woon a bàyyi muy jàll loolu loolu wax dëgg yàlla ñoom ci seen bopp ñoom ñoo war a njëkk a génn booba mm-hmm. ñaawlu wax ju tol noonu mm-hmm. bu deen émission direct la dañoo war a dagg émission dama lay coupé su fekkente ne média mi ngi dox mi mi ngi def liggéeyam loolu kenn du toog it bu doon site internet yi ma baal leen xam nga euh, Mbacke li nga wax dëgg la xam nga tamit wax dëgg yàlla su euh, suñu métier mi léegi maanaam soxu mi weñ yeeg ñëpp lañ ciy dugg mais tey jii am na ñoo xam ne professionnellement bu doon tane ñi ngi interroger euh, euh, Gaston xaw jàll mais boobu moom lu jàll. su fekkee enregistrement la nañ ko coupé a dagg a arrêté wax ko leneen kenn du ko reprendre parce que ah, tamit mënoo mënoo dem ci nit muy wax lu ko mais c'est-à-dire que li ma doon wax rek violence balañ koo wax ne nañ ko tere ci réew mi ñiy violenté nañ téye seen loxo violence verbale violence physique ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc loolu mooy mbir mi bu askan sàngam bu leen taalee matuñu cent personnes loolu loolu du diine du ngor du lenn loo xam ne lii na dëppoo na ak couleuru Sénégal mm-hmm. ñooñu ñooñu nag laay wax ma boole ko ak Macky Sall recevoir bu fekkente ne

maanaam euh, ñooñu moom ñooñu moom hors temps lañ nekk non bu fekkee bu fekkee bëgg nañoo bokk ci sëbi dëgg-dëgg hmm. dañuy ñëw fi yëf yi nekk te bàyyi caaxaan yi hmm. am na ci yoo xam ne ay caaxaan la topp ci opposition bii nga xamante ne amuñu benn doole lu dul mobiliser ak ay kàddu wax ko Macky la te loolu yàgg am ci politique loolu xañewut jàmm xam nga luy xañee jàmm ay bay la puude yoo xam ne euh, amuñu kenn falu leen du nomination du ndomb ak tànk waaye ñoom liñ bëgg a liggéeyee mooy seeni kàddu yu maanaam yu ñaaw ak di réeral askan wi loolu lañ bëgg liggéeyee foofu la ñuy taxaw daal di daal di daal dakkal ñooñu seen seenub liggéey xam nga garçon démb tëgg na làmb mais làmb ji sénégalais yu bari yëguñ ko parce que sénégalais yi làmb moom daanaka kiyatu leen léegi hmm. rawatina làmbi xur dab yi nga xam ne sos mi ne woon bàyyi na bëri la tëgg ak ñu kenn xamul léegi bu loolu jeexee làmb ji kenn déggu la nga hmm. indi ay wax joo xamante ne wax ji jublu ci loolu bu dee moom loolu la bëgg a jariñ président Macky Sall li mu koy yàqal moo ëpp li mu koy jariñ te nag boo gisee ma mbir mi as gor du caagi ne woo la ci yoon rek ragal mais da ngay ragal wax yoo xam ne kàddu yoo xam ne boo ko waxee ci pénc mi say nawle xam ne li nga wax ni jaaduwul loolu ñëpp ko war a daw d'accord hmm? loolu loolu ñëpp ko war a daw parce que nag koo xam ni kii da ngaa a mel ne caméléon nekkoon fi régime yi fi jaaroon yëpp xam nañ ku ñëw xam nañ ban tànk la ca taxawee woon euh, su ñëmee ba léegi tey ji man li ma metti rek mooy le fait que ñu ciblé benn askan cible li ñu ciblé benn sant ne nangam ba noppi nag tuddaat yeneen sant pour valoriser ñenn ñi dévaloriser ñi ci des loolu dama ne la du l'islam bu doon tax dañ bu fekkoonte ne sax dañ ko doon tekki nii ci wolof danaan ak ñàkk teggin la dama ne wax ji wax ji oustaz Maodo Faye Mbacké Sylla naka la ñu nekkee ci réew boo xam ne ñii war a joxe exemple ñooy joxe wane contre exemple à chaque fois kii wara sévir ci contre exemple yoy mo lay defal promotion à chaque fois bo woné contre exemple ñu nekk ci bobu rew légui yow bo waxé wax ji ak dëgg bi ñom ñu dal sa kaw wala ñu lay lijjanti di la lu mbóot naan léegi moom itam def na fi lii defoon na lii dugg na fii génn na fii au lieu bi ñoom duñ ci taxaw de ñoom dañuy préférer dem ci yu ñàkk fayda di ko kii mais loolu comment on peut l'expliquer benn réew boo xam ne dafa respecté boppam euh, adduna yëpp di ko seetaan ngay wax wax yi euh, exemple tey di wane ay contre exemple saa ne mais xam nga ak di ko assumer moo tax ma ne la réew mi tànk bi daa faxaj ba mënta dox Sénégal fi mu toll nii dafa am laago laago bi mooy yii ngay wax nii te yooyu nag ki ne ñi yàlla di teg ci kaw ñoo waroon a ba ba ñu toogee faxas yooyu yëpp mu dindeeku parce que ñoom boo xoolaatee man yenn saa yi damay toog ba mu yàgg may dem di dégluwaat campagne électorale bi fi jàlloon ci jamono yële ay bi Macky Sall di falu ak léegi ak yi doon wax ma xam ne léegi campagne ku jëratul a déglu mm-hmm. ndax li ñuy wax ci ëtt bi ak li ñuy jëf bu ñu toogee bokkul mm-hmm. man xaw ma lan moo xew ba ku toog ci siège bi rek day mel na yow mi fi nekkoon démb bu la da ngay jékki-jékki rek verte léegi na couleur yooyu nga xam ne moo tax moo tax tamit ñi mel na moom ñëpp wala ñi mel na ñooñu ñëpp ñoom ñooy bokkaat genn langue googale la ñu wàcc woon rek ñu daal koy ravalé waat yéen a ngi ci ndekki li émission nante yi ñu nekk actuellement en direct suñu ay plateforme digitale YouTube ak euh, Facebook rawatina Sud FM seen rajo Mbacke hmm. bu boobaa naka ci pexe daanaka pexe amu ci parce que euh, bu fekkente ne réew mi fi mu toll képp koo xam ne faroog état loo wax naka sudul noonu bala ñoo daane ñu ne procureur euh, autosaisiru na dem na jëli ko wala woo nañ ko wala convaincre nañ ko waaye koo xam ne nga baal ma Mbacké daguma la encore une fois procureur yaa ko hmm. tudd sànq procureur bi affaire um coowal Miss Sénégal bi eh, jibee fii hmm. ñu bëri neewoon nañ ah procureur de ñàkkul li eh, coow li ni mu graawee nii ñuy wax ay proxénétisme ak yu kenn xamul ñàkkul ne procureur dina dina sévir mais ba léegi xamatuñu sax wax jooju fu mu mujj léegi euh, yaa ngi tudd procureur ne saaga bu ni mel ci réew Euh, moom ci boppam moo waroon njëkk a wane boppam benn instant tamit da ngay laaj ci ana procureur waaw c'est ça moo tax ma ne léegi bi nga laajee lu ciy pexe man la kon pexe mi da ciy jaaxal nit ñi fan lañ ko ciy amee hmm. ndax léegi bu boobaa boo faree ci nguur lu la neex waxal hmm. lu la neex defal du mujj fenn ndax am ngay bàjjen ci réew mi hmm. boo farut ci nguur nag boo nee càpp rek laa ilaha illallah bu la songee ba bàyyi euh, da ngay yéemu ci yàlla boroom xam-xam yeeg yenn rajo yeeg yenn télé yeeg ñëppay génn jox la ay leçon morale ba yow dootoo xajati ci dëkk bi hmm. waaye kii moom fi mu ne del xool daanaka mën naa bañ a mujj fenn fenn hmm. fenn fenn fenn hmm. te wax ji Gaston wax moom wax ju ko gën a ñaaw dadul bareeti euh, wax la nag joo xamante ne dafa am rek lu mu yokk ci yi fi xew maanaam réew mi ñoo indi xeetu xeetu xeetu mbirum xeet te loolu xewu fi woon maanaam affaire waaso affaire askan affaire nàngam ñun Sénégal dëgg la ci wàllu askan kenn ku ne fonkoon nga sa wos waaye tëgtalewut woon ne da ngay ñàkkal worma ki nga jàkkaar lool ñëpp tiw dañoo nangu woon a yem ci réew mi doon ay sénégalais am lu ñu bokk mag ñi ràbbee ñu noonu ba tax ñu wutaloon ñu ay kal séeréer di kalanteeg euh, tukkulóor euh, kii di kalante kii nga xamante ne même bu ma jàppee ne man sama askan dafa feer it su ma dajee kii comme ay kal lañ hmm. kal googu ubbi na ko lu nekk mu mën na koo wax ñu yaatu woon dënd ba nga xam ne waxuma sax ñoom jaas ñi nga xam ne dañ fee juddoo bokk ci réew mi mais étranger yi nga xam ne dañoo jóge bitim réew ñëw ci réew mi rek fii dañ doon wax naan boo fi jotee kenn boo demee ci yoon sax kooku lay jàppale bàyyi bu bu Macky Sall bi. Mm-hmm. ci lañ indee affaire nit ak xeetam affaire waaso affaire askan affaire mbokk affaire nangam bu fekkee Gaston moom ay kàddoom jëmut ci côté boobu nga xam ne moom lañ gënoon a miin maanaam nit maanaam Gaston. Euh, man li muy jariñ askan wi jaaxal na ma su weesoo tëgg ay làmb wala dara Gaston mës a wax jàmm ci réew mi Gaston mësuma seetaan émission bu Gaston wax ba mu jeex wax lu amal njariñ nit ñi bëri na ci morom nag ay toj toj lay wax ak ay jeu nekk rek ci ay carte noonu da dam ya ay pion bëri na ci morom dam ya ñi koy ñi koy laaj wax ay tooxi doona ñu mel noon nag bu fekkente ne ñoom la ñoom la président di déglu wala ñoom la waa presse bi dem di dégg man Gaston luñ koy invité laa xamut maanaam Gaston Gaston buñ ko invité wut ci ne ko ne ko ñaata mbër nga war a tëgg ci at mii lan la ñu mën a wax euh, lan la ñu a wax ci politique bi lu ñuy jariñ wala mu wax ñu ko ban leçon morale la ñu gasoo mën a jox moo tax bu waxee lu mel nii nañ sant yàlla parce que naa wax lu gën a garaaw lii euh, euh, maanaam lum ci man di doon responsabilité yi dafa partagé wu tàmbalee ci état mi koy mi koy liggéey loo bu fekkee mercenaire la jëm ci jëm ci presse bi ko dékk micro muy wax ay ay tuuxi doona jëm ci ñi nga xamante ne nii ñoo ko fi bàyyi woowuñ ko nëga ni Gaston dañ ko waroon teg lu diis mooy tax ëllëg kenn du def lu mel noonu waaye buñ ko fi bàyyee ëllëg kuñ fi jàppati dañ laa jaay doole Mbàkke wax ji wax ji mooy loolu bu neexee président nag loo ci mën ñooñu bu ñu neexee président loo ci man yow mës ngaa gis ñooñu noonu noonu nee naa la bëri ci morom président mës a sanctionné kenn ci ñoom non da lay def defal promotion b na am looloo ko neex léegi euh, li ci li ci li ci euh, ñaaw rek ak li ci doy waar mooy euh, daf ñuy yóbbu ci ay xam nga léegi réseaux sociaux yi foo tijji léegi ay saaga saagante ndey la mbedd bi boo rombee boy yi léegi saagante ndey c'est-à-dire finalement euh, mag ñi waroon joxe exemple puisque ñooy contre exemple yi boy yi tamit mënoo leen reprocher seen seen ñàkk yar ak ñàkk teggin nag yooyu finalement ñoom seen lépp seen waxin yëpp dagante ndey la ngeen ñu baal ma ci kàddu bi saagante ndey matin midi et soir moom la ñu dëkkee ci mbedd bi ak ci réseaux sociaux yi donc finalement mooy seen langage amoon naa benn laaj oustaz Maodo Faye naa naafeq baat boobu lu muy tekki. waaw naafeq rek xam naa damaa ragal ne sax xëy na wolof moo ko wëlbati mais damaa ragal ne euh, xëy na arab la. Hmm. maa jàpp ne baat bi baatu arab la. waaye xam naa ne daal euh, yàlla nag am na saar woo xam ne ñoom la ko tuddee. waaw naafeq yooyu. maanaam mooy ñi nga xam ne maanaam tey ni ko yonante bi waxee moom bu la diggee. Hmm. rendez-vous bay boo nga xam du ñëw de te lu mu la wax dana ci indi wor. tey tamit lu ngeen wax itam mën na laa war maanaam daal naa seq daal kenn la koo xam ne kii moom jikkoom baaxul l'islam gërëmu ko. mënuñu ko tekkee euh, hypocrisie hypocrite hypocrisie la nag waaw kay la moo boobu sax moo gën a kole ak naa feq moom euh, yonent bi sax wax na ne daanaka safara bu fekkente ne am na lu lu xel wa nekk ca suuf boo ko gën a tàng ca suuf hmm. ca ca daraj ba hmm. moom foofu leen yàlla di yóbbu hmm. waaw parce que dafa bulewul xonqul ñuulul oustaz Sall yonent wax yi ngay wax nii yëpp fi muy lay yóbboo kii yooyu dafa mel ni gars yi ñooy kii watuñ ko seen maay na waaw mais parce que xëy na da wax yu graaw ay ay ay ay fen ay ay soxal ay nanan yi nananaa yooyu yëpp nga xam ne dafa graaw mais ñoom gars ah, koo xam ne kii tey bu ngeen bu ngeen jëflantee te nee nañ dañu gëm yàlla noonu bu ngeen mu war la bu la joxee rendez du ñëw hmm. su waxee xàcc wax ja hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ni ko xadis ba tëddee të tërale. Mm. kooku ku ne moom nga. Mm. bu fekkee jëf jëmm jooju daa nekk jëf jooju yooyu yëpp dafa nekk ci yow. Mm. waratoo génn ci mbedd mi sax yow du tax. Ah, ñun dañuy julli dañuy julli matin midi soir nee nañ dañu gëm yàlla te loolu dañ koy def te dañ koy assumer euh, loolu tamit noo koy expliquer oustaz Maodo. waaw ñun ñëpp dañ koy dund dañ leen di gis. xam nga jullikat ak jullit nag dañoo bokk. jullikat ak jullit bokk. ñu leen utale. waaw waaw parce que xam nga jullit pire piir lu jafe la nag lu jafe jafe kooku moom yii nga wax moom du ko def waaw bu fekkente ne rek ci norme yi lislaam yi la taxaw dëgg dëgg dëgg hmm. jikko yii moom inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar hmm. dafa war a faxasu hmm. di roccee ko par ndànk def te kéemtalaayal kattam bu leelu bu lépp jeexul it am na ci yooyu moom dootoo ko gis ci moom waaye yii nag ku foo ko gis muy màgg ci ci ci yaramu nit mel na gàncax guy soqeeku ba nopp ñu ne la mi ngi julli xëy na day màcc rek waaye. <laughs> bëri na fi nag ci réew mi oustaz nga baal ma mais mais euh, Mbacke. boo gisee ma laaj euh, laaj boobu euh, oustaz Maodo sax mooy euh, baat boobu dafay faral di ñëw lu bëri mm-hmm. te ñëpp koy utiliser mm-hmm. finalement ku mu arrangé sa boor rek nga utiliser le mot nga nekk opposition nga nekk la nga nekk pouvoir la nga nekk sa adversaire nga ne naafek la et donc finalement doo xam kat moo ci hypocrite voilà mooy kuy wax lu mu rek koo xamante ne li muy wax mën na cee waat mën naa wax ba jooy mën naa wax ba na yàlla nee na naafeq bu waxee nga gëm ko ndax wax ji day rafet naafeq bu soloo nga bëgg ko ndax col gi day rafet waaye yàlla nee na wax ji moom daanaka moo jalub mboobayam amul njariñ euh, boo ëffee rek mu naaw waxi naafeq jëmut fenn léegi nag naafeq ci diine daa mel ne daa wuuteeg naafeq ci pénc mi naafeq ci diine moom lu leer la ndax ñaat ndax ndax ñett nit a am ñi ne gëm nañ yàlla ak ñi ko weddi ak ñi dem dugg ci biir ñi gëm te gëmuñu ñooñ ñooy naafeq yi naafeq moom day fekkee mbir mi di yuuxu euh, di di daanu jël di say waaye fekk gëmut bu génnee delluwaat ci programme naa naafiq ci wàllu politique ak ci doxalinu diine ji nag mooy koo xamante ne nii li muy wax ba nga yaakaar ne réew mee ko ñor réew mi ñoru ko boppam a ko ñor waye nak sa yuy wax day melni askan wee ko ñor buy wax ci wa APR da nga nan ki APR ko ñor mm. président Macky Sall ko ñor mom mm. rew mee ko intéressé fek intéressé wu ko da am ben enveloppe bu muy lewal wala wala marché yu muy lijjanti wala ben mission buñ ko sant mu koy liggé waye rew mi ñoru ko mm. motax politiciens yi ñu bëré bëré bëri ci ñom ay nafiq liñ ci walu politique waaw parce que parce que liñ wax askan wi ak liñ doon bokku te lol jikko nafiq la liñ ñuy won parce que ku ci ñew di wax da nga nan rew mi la ñor ñom ñepp neena ñu rew mi leen ñor kat waaye ñoom ñëppit ñoy worat rew mi liñu nakari ñoñu ko tek manam suñu yëpp ñoo ñu ko yóbbee kon loolu mooy ak naafiq naafiq ci diine mooy koo xamante ne daa ne ci biir jullit ñi wa isaa laqul lazina amanu xaalu amanna bu dajee ñi gëm ne gëm naa wa isaa xalaw ila shayatinihim xaalu inna maakum bu demee ca seytaane ya ay kilifaam ay yéefaram ne leen ci ñun lañ bokk yàlla ne ñooñu dañuy ñaawal rek waaye man ba maak ñoom naafiq ci politique nag mooy yi nga xamante ne moo am ci penc mi rek ñoom ñëpp yàlla nee na am na ne wa minan naasi am wax ndax seen discours yu waaye nee na bu ñu leen falee ñu yàq réew mi hmm. ñoo xamante ne seen discours yi dafa rafet waaye bu ñu leen falee ñu yàq réew mi am na ci discours yu rafet ñoo xam ne bi ñu leen falee ba noppeet ñi ngi yàq jikko yi doy na waar torop euh, sas question bi ma posé sànq Mbacke mooy naka naka ci pexe tamit xam nga. xam nga mooy li ma wax man ba may agsi tey dama désolé euh, ma ne xaaral ma posé thème na daa mel ne sawaroo. sawaru ma woon ci woon. xam nga man nee naa la damay pare su may valise. ne la waajana la waajana woon li kulli daa in dawa un yustafaddu bi il xamaaqa moo moo ñu bëgg a dal. feebar bu ne mënees nga koo wutal doomu garab bu ko faj ba mu yuur gu feesul fee fee yuur moom kenn mënu ko mottali ak waye mm-hmm. di ak tanq di mënoo tànqati ci sottiwaat yuur gi pour mu mm-hmm. boole ko wax xam mm-hmm. kenn mënu ko waaye naa fiqit wutal ko pexe day doy waar ndax ñaare déet naa fiq kenn du ko mën a faj maladie la boo xam ne bii c'est chronique kooku moom gis nga covid bi lu muy garaaw garaaw garaaw naa fiq ko gën a garaaw ah, yii wëpp nafiq da lay rey ba pare bàyyi la ngay dund. est-ce que da nga naan moo lay jaale si mooy. jooy mooy jaale si xam nga ñëw kii nangam. même même moom moom mi woote nafiq moom dee na te yëgu ko. est ni mu mel kenn bëgg koo mel. Hmm. il est mort nii moo neexul askan wi te xamu ko ne bu ko defee nag day dem te mbàkke seen na ko mbàkke gis nga bu ma fekk bu ma la fekkee njaareem nangam ko xoon nangam hmm. bi ni mu kiiyee nangam mais Maodo Faye xam nga kooku waajooji nangam kooku nag kooku kooku kenn kooku xam nga kan kenn rek la jaaxalul mooy yàlla mooy yàlla moom kenn mënu koo jaaxal hmm. waaye képp ku yàlla bind am naa fiq jaaxal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbàkke koy junj léegi hmm? bi mu nekkee hmm. a da ko gars yi bokkuñu ci ay ay naafiq lañ dafa wax ne ay naafiq lañ te xam nga lu ah? ci yonent bi ne ko nun dañ laa gëm moom la mbàkke doon wax léegi nii yàlla ne ko ah yow de xam naa ne yaay yonente waaye man de wóor na ma ne ñoom gëmuñu. Hmm. parce que dañuy fekk dañuy kàcc rek. léegi euh, laaj bu mujj bi euh, ndax temps bee ngi dem euh, bu boobaa pourquoi est-ce que duñ jël référence ci ñi nga xam ne juddu nañ dund fi ba dem bal tàkkul coow jibul sagar xëy la référence yooyu ñu ngi fi de. Mhm. mais pourquoi est-ce que ñun à chaque fois ñu war jël référence ci des contre-exemples. Mhm. te yeneen exemples yu ñu war a mën a roy nekk fii te chaque fois ñu tey tegaleen de côté. Mm, lu am solo nga wax de. parce que itam boo xamut fi nga jëm jaaroo ca yoon wa. amoo ay bo boo bëggee àgg itam da ngay nax sa bopp ñun li ñu jik euh, nawloo wuñ ko li ñu jik nga xam ne loolu moo ñu jik niñ bëgg a mel it nga xam ne loolu la ñuy waxtaane saa su nekk bëgg bëgg a mel ne wuñ pour roy ñooñu ngir mel ne malheureusement askan wu mel noonu pour ñu pour ñu mel noonu dana dana dana jafe lool. Hmm. Euh, moo tax bu euh, euh, buñ jaaxlee rek la ñu la ñu indi waxi waxi yàlla. Hmm. wala ñu indi suñ mag ñu baax ñi. Hmm. Sénégal moom bu jàmm ne ne booyu di dox ñoom dañ naan leen génn leen ci politique bi génn leen ci politique bi ah politique moom yëfi nangam nàngam waaye nag buñ demee ba. bëgg ba cëgg desatul ci guy euh, ñëpp jaaxle ba daru bu boobaa nag ñu door a indiwaat nag yi nga xamante nag mooy mooy référence yi dugalaat ci diine ji laaj lu yàlla wax ci nangam yonent bi nangam mais yii ñuy wax fii tax naa fekk tax bi nga ko laajee waruñ ci woon a tudd xadis waruñ ci woon a tudd alxuraan parce ñi nga xamante foofu lañ koy àtte woo alxuraan ak xadis bu fa nekkoon référence am na loo xamante du ñu dal ba ñu agsi fii waaye bu ñu amee a référence beneen mbir la mais bëri na ci ay référence fii yoo xam ne du nekkuñu sax ci diine ji juddu nañ fi euh, dundu fi ba dem comme te te war nañ mën a nekk ay référence comme kan Stas Maodo Faye ah, euh, fànn fànn bu ne ci politique bi ci économie bi mm. ah ci social bi ci et cetera et bu dee politique bi du ci diine kese la ñu am yi référence waaw c'est vrai xam nga xam nga bu fekkente ne dañoo dañoo dañoo teg ne comme ñu ko Mbacke waxee bu fekkee jàq nañ rek demaat ci diine ji xam nga Sénégal tamit am na ay ñu fi nekkoon ñu amoon mm, jom mm. ñoo xam ni lu ñu la wax dëgg la. dëgg la waaw waaw waaw amoon na ci jamono ñoo xam ni xëy na dañ daan laxasaay sax yore jaas yi jàkkaarloo tubaab bi cedd yi fi nekkoon ak yu demee noonu dañoo am am na ngor yu nekkoon ci ñoom am na jom yu nekkoon ci moom am na ay qualité yu bari ñu nekkoon ci ñoom yoo xam ni même sëriñ si am na ci ñoo xam ni jël nañ fa ay soxna soxna ak yu demee noonu su dee ci ñi nga xam ne ay panafricaniste yi nga xam ni ay panafricaniste sax laay wax ñi nga xam ne ñu mel ne ay ñoom Kourouma nga xam lañ doon doon doon laajaat Afrique nekkat boppam nanguwaat boppam nit ku ñuul xam mooy kan loolu l'exemple de Serigne Touba aussi mën nañ koo jël parce que der bu ñuul am na jom ju mu ko bu mu ko bëggoon a delloowaat parce que xëy na étudier na ba xam ne tubaab bi dafa bëgg supérieur ak yu demee noonu ñoom Cheikh Anta Diop yooyu lañ doon xeex ngor yooyu ñooñu ñooñu première classe politique yi fi nekkoon am na fi ay chef d'entreprise yu taxawal ay société mag yoo xam ne seen société mag tey nekk tuuti ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll nii abonné fii si Tere Fallou ngeen mën a jot moo leen vidéo xam ne ko lañ ko te bu leen fàtte ba tous cloche notification mooy tax vidéo bu ñu ngeen gis ko